asalaamaaleykum wa rahmatullah dal leen ak jàmm ci seen chaîne télévision bu Tawfekh Production tey ñoo ngi fii ci fi nga xamante ni mooy kër Serigne Issakha Mbacke ibnu Serigne Moussa Bassirou Mbacke ci 18 euh, safar muy bisu magal bi nga xamante ni moom la ñu amal si atum 2018 euh, bi mu tombeek 1440 euh, ci atum gàddaay gi. tey ñu ñëwoon fii di fi amal li nga xamante ni mooy bis bi euh, Serigne Issakha Mbacké di amal di ko amal at bu nekk euh, ci li nga xamante ni mooy màggalu euh, Serigne Touba gi gis ngeen li nga xamante ni jot nañ ko fee amal ñu waaj a dem ci li nga xamante ni mooy waa kuréel gi ak jëpp ñi nga xamante ne ñooy waa organisation bi ku ci nekk dinañ dem ci moom laaj ko li nga xamante ni moom la yor ci wàllu liggéeyu kër Serigne bi ci wàllu njàng ak alxuraan bi ci wàllu togg yi ak waañ bi nga xamante ni moo nekk ci suñu ginnaaw ci wàllu séerage bi fa nga xamante ni fa la ñuy lewatale xari fépp dinañ fa dem euh, laaj fa ak ñi nga xamante ni mën nañ ko fa jël comme information euh, dégtal leen ko ci fi nga xamante ni mooy kër sëñ Isaaxa Mbacke euh, moom Serigne Moussa ibnu Serigne Bassirou Mbacke fii ci Jannatul Mahwa asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatuhu dal leen nag jàmm ci seen euh, chaine bu télévision Tawfekh Production ñoo ngi fii ci Touba ci kër Serigne Issakha Mbacké ibnu Serigne Bassirou Mbacké euh, ci li nga xamante ni mooy màggalu Touba édition 2018 euh, tey ñu ñëwoon fii ci bis bi nga xamante ni moom la fi amal ci këram gi nekk fii ci Touba ñu nekk ak njaboot gi nga xam ne dañoo fi nekk ak jërinam gi nekk fii ci kër gi yor liggéey bi nga xamante ne moo nekk ci kër gi yëpp ñu nar ñoom waxtaan ci ki nga xamante ni mooy Serigne Issakha Mbacke ak euh, li nga xamante ni moom la bokk ak kii di Serigne Mountakha Mbacke euh, di xalifa général des Mourides euh, kon dañuy dugal ki nga xamante ni mooy suñu jëriñ laaj ko li nga xamante ni mooy turam asalaamaaleykum jëriñ. asalaamaaleykum wa wa barakaatuhu ñoo ngi fii ci kër sëriñ Issakha Mbacke moom Serigne Moussa moom sëñ Bassirou di nekk fii ci jannatul Mahwa ñi ngi leen di siyaare yéen waa Tawfekh Production di leen. baalu ak di leen baal ak di ñaan suñu borom boolu ñu jëggal di rafetlu seenu taxawaay ngir leeral lépp loo xamante ni lu jëm la ci diine ak lislaam loolu moom lu jara yaatu la ndax am na ñoo xamante ni eh, lañuy nekk neexut yàlla neexut yoon te ñu ngi koy yaatal kon nag lii ngeen bëgg a yaatal mu nekk loo xam ne daa neex yonent bi neex Serigne Touba kon loolu moom ñoo ngi leen ci sant bu baax ci seenu taxawaay asalaamaaleykum wa rahmatullah. naka ñu bi yow naka nga tudd ak lan nga nekk ci biir kër gi. waaw man maa ngi tudd sëñ Ahmadou taal di jëwriñ ci kër gi di jëwrin ci kër gi ci waa kër sëriñ Issakha Mbacké. waaw njabootu sëriñ euh, Bassirou mooy doom la ci sëriñ Moussa moom sëriñ Bassirou nekk kilifa goo xamante ni doomi sëriñ Moussa moom sëriñ Bassirou magu sëriñ Mountakha Mbacké. wóolu wóolu sëriñ Touba mi nga xamante ni moom la koy defal ndax sëriñ Touba moom képp ku ko jox gëdd mu jox la gëdd te ku ne xam ne moom jëf ji nga xamante ni di ko jëfal Seexul Xadim loolu moom feeñ na ci feeñ na ci moom feeñ na ci moom ndax it am na ci loo xamante ni moom sëriñ bi moom. boo ko defee soo ko defee ci soxol mu def la ci xolub murit yi te ku ne xam ne sëriñ Isaaxa moom yàlla suñu borom sër xam na ni sëriñ bi def na ko ci xolub murit yi ndax maanaam eh, bin jugee ci jumaa ji rek firnde na ko kon nag moom mooy koo xam ne daal lislaam eh, sëriñ Touba da koo gënal jëmmam ji moom moom moom maanaam sëriñ Touba da koo gënal jëmmam ji bis bi moom lim gën a woo mooy njàngum alxuraan bernde xam te ni bis bi daal moom moom moom du ko du ko desal dara nga xam ne euh, bis bi bu ñëwee euh, nga xam ne murid yi siyaare gi ñu koy siyaare addiya yooyu ñuy joxe di koy jël dajale ko seet fu mu xaj ci bis bi nga xamante ni da moom dala daan jox naan seetal fu mu ci bis bi xam ne moom du dugg ak néegam dara maanaam danaan la seetal fu mu xaj ci bis bi kon kooku mën nañoo firnde te mel na ni ah ñi ngi bëgg a yàgg ak moom te ànd ànd ak moom ci liggéey Sëñ Tuubaa bi ak murid yi murid yi yëpp moom loolu moom ni ma ko mën a seedee la ko ñëpp mën a seedee ndax ñun sunu kër ñëpp ay jëwriñ lañ maanaam li lii sunu lii sunu titre mooy kenn ku ci nekk noo yëgee noo yëgee sëriñ bi rek nga doxee nii. looloo tax ñenn ñi ñooy ñoddi ñenn yi ba nga xam ne maanaam Serigne Isaaxa taalibeem bu ne mat na mat na jëwriñ loolu moom mooy mooy doxinu Serigne Isaaxa Mbacke. ci wàllu doxalin am na noo xamante ne moom la organisé kër gi ci wàllu njàngum xas day yeeg ak li nga xamante ne si la ñuy yaree xale yi. Mhm. Euh, boo ñu mënee xamal loolu tamit ndax nañ ko organisé si biir. waaw yàlla dogal na li fi nekk ci ay gone maanaam ëpp na ñeenti téeméer jëm ca kaw ci ay dongo yoo xam ne dañuy jàng alxuraan euh, di di di di ñu leen di tërbiya boole jàng mi boole tërbiya gi boole yar gi boole tërbe gi mooy mooy yoonu yoonu yoonu nëx yoonu nëx ju rek ni nga xam ne lay waajale bis bi mooy mooy euh, ni ma mën a xëy na danaa ko tasaare waaye ni ma ko mën a tënkee mooy sëñ Isaaxa bisam yëpp màggal la moom loolu moom ñëpp ma bisam yëpp màggal la ndax daara ji liñ fiy jàng ci kaamilu alxuraan maanaam euh, maanaam buñ ko xayma euh, ci waajal bis bi mat na ëpp mën na junniy kaamil yàlla dogal na fulk bi maanaam ni ko niñ koy waajale weeru koor noonu lañ koy noonu noonu noonu la koy la koy toftalee nga xam ne ay waxam mooy bu kenn toogeeg loxoy neen bëggul kuy waxtaan nga xam ne moom kuy waxtaan bëggul kuy waxtaan bëggul ñaar ñuy toog feeb bi waxtaan nee na kon yéen a ngi sànq seeni seeni waxtu te sëriñ Issakha ku ne xam ne ni bëggul ku sànq waxtu saa bëggul ku sànq waxtoom ci ay neen saa su nekk daal liy mbiram mooy na ngay na ngay na ngay sax ci tudd yàlla di sax di julli ci yoon yonte bi sallallahu alayhi wa sallam taalibe yëpp ñëw nga xam ne li muy njëkk di soññee mooy fépp fu waay ne muy soññum gu njëkk waxtu juróom bi fu mu jotee nañ ko ñëw jullee ko ci jàkk ji ñuy ñu ñu toog fii daan ne fépp lépp lu may waay di defal ba waxtu julli jot na nga ko bàyyi ñëw ba julli ba noppi loolu mooy ndigal li daal di wax ne lépp loo xamante ni ndax tey am na ñoo xam ne ñi ngi fi ñi ngi fi ñëw di ko siyaare te am na ñoo xam ne indi nañ seen addiya waaye daf ne déedéet na ñëpp dem ci njàngum alxuraan mi ak njàngum xasee teewlu teewlu liggéey bi ban kii su ma génn ñu siyaar kon kooku bis bi moom sëñ Isaaxa ay bisam yëpp ay xasanaat la maanaam ay bisam yëpp daal ay ab liggéey bi sëñ Tuubaa moom tayam june day gàccal démbam tayam june day gàccal démbam bisub sëñ Touba bi lépp loo xam ne def na ko ci ren bu dewee déwénee murit yëpp ak jullit ñëpp dañuy xam ne lii yokkaat na moom noonu la ko yàlla bindee te it moom bisam yëpp màggal la bisam yëpp weeru koor la bisam yëpp alxuraan la moom daal ci ni ma xam ne la koy màggalee dëgg daal ak ni ñu ciy tënk daal mooy Serigne Issakha Mbacké alxuraan la di ñaanal sëñ Mourtala mi nga xamante nii saa su nekk mi ngi mi ngi góorgóorlu ci ci ci fexe lépp dara du dara du umpe loolu ñoo ngi ñaanal euh, teleen bii yàlla na ko sa borom def mu mu mu faw xal lépp ndax kat xam nañ ne moom ay mbiram li nga xamante ni mos nekk moom daal euh, bu yaatoo yaatal ci yoonu Cheikhul Khadim yaatal ci jullit ñëpp di ko ñaanal yàlla defal leen tawféex yéen ñi nga xamante ni yéen yéen fi ñëw di leen ñaanal tawféex di leen ñaanal gudd fan di leen ñaanal lépp loo xam ne am nañ ko ñàgg na ñu bokk ko ak yéen asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa bar ndax ñi fi toog daf ci am ñoo xam dañ fi toog sëñ Cheikhouna Gueye mii euh, dafee dafee nekk sëñ Mouhamadou Mouhamadou Mouhamadou Diop euh, di goro ci sëñ bi sëñ Khadim sëñ Abdoulahi sëriñ sëriñ ñi nga xam ne ay jëwriñ lañ sëriñ sëriñ sëriñ sëriñ sëriñ Saliou Badiane sëriñ bii nga xam ne moo yor daaree alxuraan ji nga xam ne moo yore tër bi géeg lépp muy sëriñ Abdoulaye Dieng nga xam ne daanaka alxuraan ji moom moo ko fiy biral nga xam ne moom bis bu set alxuraan ji moom dañ koy biral loolu moom jiiru dund la sëñ Alsaan Jéy mii ci wàllu xam-xam bi lépp ci la nekk sëñ naa mii nga xam ne professeur professeur la ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci lycée bi nga xamante ni moo nekk Mbirkilaan di taalibe sëñ bi ñëpp xam ko ci xam-xam moom it mi ngi toog di siyaare di présenté sëriñ sëriñ sëriñ Naar Seck di kilifa ci kër gi sëriñ Saliou Ndiaye di jëwriñ ci xale yi ñu ngi ñu ngi ñu ngi leen di siyaar ñëpp di leen ñaanal tawfeex te xam ne ñun ñëpp jëwrin moom ñun ñëpp a ko doon waaye dañ maa bàyyee kàddu gi rek rafet ci man njortu waaye ñoom ñi ñëpp ñoo ñu ëpp xam-xam ñoo ñu gën a xam sëñ bi waaw looloo tax ñun ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax baax. kon dégg ngeen li nga xamante ni moom la jëwriñ gi wax ci ay kaddu ci kër gi nga xamante ni mooy kër sëñ Isaaxa Mbacke ko dinañ wéy di leen euh, wan li nga xamante ni mooy programme bi fii ci kër euh, euh, sëñ Isaaxa Mbacke fii si Jannatul Mahwa fii seen chaîne bu télévision Tawfekh Production jaa ngeen jëf. Euh, jëriñ gi nga xamante ni moom moo yoru wàllu culture bi dañ koy bàyyi moom mu présenté wu euh, daal di ñu xamal euh, li nga xamante ni mooy kàddu yi mu war a wax ci commité bi nga xamante ni moom la yor sëñ bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi lay fay nuyoo di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci mbooleem ñi nga xam ne ñoo ànd ak yéen ci liggéey bu sell bi ñu topp ci tawféex gi nga xam ne moom ngeen indi. ñun nag Cheikhouna Gueye lañ tudd di kenn ci dongay Serigne Isxaaqa Mbàkke moom Serigne Moussa moom Serigne Bassirou euh, féetewoo it ci wàllu culturel bi jiite commission culturelle bu daaray Nahju waa kër Serigne Isxaaqa Mbàkke moom Serigne Moussa moom Serigne Bassirou ak ñi ma ko àndal di professeur arabe ci lycée bu Mbirkilaan kooku mooy wax ak

dafa ñëw rek beesal renover li nga xam ne moom la fi yonent bi sallallahu alayhi indi woon muy diit muy beesal diine ji lim fi feggoon mu fagadaay ràpp mu salaat ko loolu nag mooy siraatal mustaqim ki nga xam ne moom la alxuraan digal ñëpp ne jaare ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko istaqim fastaqim kama umirt ba man taaba ak yow yonent bi na nga ne coow ca yoon wa ak mbooleem ñu ànd ak yow Sëñ Tuubaa yoon woowu la tegu woon teg ca ñam àndaloon waaye gannaaw ba moom xamoon na ne ak dundam ci zahir day am yemukaay ba dana làqu bët yi te liggéey bi mu yor bëggul mu am day talu mu talaloon ay loxoom ñaan suñu borom na ko nang ma defal njaboot goo xam ne dañuy bokk ci man waaye liggéey bi ma indi mission bi may dox dañ ma koy continuer na ko zurriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabil mustafa tajtahidu wahab lana zurriyatan tudimu al amal saalih yaa xadim yëpp di dugg ci biir ñaanuk njaboot guy tegu ca yoon njaboot googu nag alhamdulilahi ñun waa kër Serigne Isaaxa Mbacke di waa Daara Nahju bi ñu amee Serigne Isaaxa muy kenn ci waa kër Serigne bi di kenn ci nga xam ne ñaan gu nangu Serigne bi Serigne Touba lañ koy gis lañ koy xoole ba tax na kon liggéey bi ñu fi amal mooy liggéey boobu maamam ne woon moom la Serigne bi dekkalaat ci fas yéene dundu lislaam diine lislaam nag su ma ko waxee mooy dund imaan islaam ihsaan ñett yooyu yëpp nag la tege di ca tàggat ak njabootam di leen ca yar loolu nag euh, commission culture di ca dox dox bu am solo ndax buñ ne culture muy lañ na saqaafa euh, moo ëmb mbooleem luy jàng ak njàngale ak yar ak lépp activité culturelle yëpp rek dugg ci biir kon liggéey bi ñu fi am daal mooy jàngal taalibe yi yar taalibe yi jotal leen li sëriñ bi bëgg ci ñoom te mooy ñu fexe ba doon ay jullit xaqan fuñ mën a ne bu dee ci bisu màggal gi nag euh, ni ngeen fi gisee rek noonu la doxali ñu mu di ne sëriñ bi fexe na ba tënk mbooloo mi kenn ku ci nekk nekk ci dara euh, séddali ko ay pàcc gis ngeen yéen a ngi kuréel gi ngir yittewoo xasidaam bi gis ngeen ko dafa génnal boppam ñëw ca xasida ya ànd koog mbooloo mi ngir dundalal sëriñ tubaa bis bi ndax Serigne Touba bis bi na xam berne la ci santaane woon sëñ Moulay Bousso moom wooyoon jox ko bëy wa ne ko soppil ma ko gàtt ngeen lawetal ko def ko nangami saam ngir sant la ma ci yàlla waaye téewul nag euh, lépp loo xam ne lu baax la day mottali cant gi sëñ Tuubaa bëgg sant boromam ndax nit jullit du neenal waxtoom te jàng xaside ak alxuraan yi ñu fi def tudd yàlla yi loola jataayu zikir yi sëñ Tuubaa nee na euh, suñ borom nee na saabu mbooloo julli daje di tudd yàlla ak a waxtaane suñu borom xasiyathum rahma yërmande suñu borom day wàcc ci ñoom kon ni ñu koy dundale mooy gis nga programme yi kuréel yi kuréelu Touba ngi fi kuréelu 1 kuréel 2 kuréelu Dakar kuréelu Kaolack ñoom ngeen fekkoon ñuy jàng léegi incha allah gannaaw kuréel yi daan fi am ay jataay yi waxtaan ay nadwa yoo xam ne dañ koy seq ak ay borom xam-xam yoo xam ne ñoom itam dañuy gën a jàllale message su sëriñ bi. ci taalibe yi tey sax thème bi ñu jël ngir aborder ko ci bisu màggal gi mooy ak tarbiya muy yar ndax ku ne xam na ne tarbiya yar muy defar jukkoy doomu aadama mën nañoo wax ne mboolem yonent bi ñëw sax looloo ko indi woon bi sallallahu alayhi wasallam bi ko suñu borom di tàgg lool la ko tàgg way naka laa laa xuliq naa bi suñu boroom sax bi mu bëggee yóbbu ni yonent bi ngir mu defar àdduna defar xeet lim njëkkee ci moom mooy yar ko. ba moom mu taxaw jël engagement wax ne adabani rabbi fa ahsana taadibi yonent bi moo wax ne suñu borom ma yar rafetal sama bi yar sëñ Tuubaa doon na loolu ci yonent bi ba jël xalimaam wax ne man suñ borom mi aji njariña ngi moo ma sant moo ma yar yar ma yarin woo xam ne gërëm naa ko ba duma denc ko sant rabbaaniyal waahibul rabbaaniyal naafiul wahaabu ashkuruhu maa dumtu xayyan bi xawli alhamdulilah yar boobu nag mel ne lu xaw a raaf xaw a raab wala nit ñi mel ne joxatuñ ko wàccuwaay bi mu am ba tax tey moom lañ bëgg a ànd ak mbooloo mi jàngat ko di ko seq ak ñu mel ne sëñ Abdoulahi Dieng mi nga xam ne ñoo yore daara ji yore njàngum alxuraan mi ak njàngum xam mi jiite ko fii ci daara ji ak ñu mel ni Serigne Khadim Diop ak ñii ñu ko seqal ñoom ñëpp day borom xam-xam di génne ci ecole yu mag yi fii ci dëkk bi ñi ci def sax yàlla dogal ñu génne woon jàngi ci réewi naar yi ba ñëw ak ñoo xam ne ñu ngi ci école tubaab bi di jàngale ñoo bëgg a seq tem boobu ngir waxtaane ko ak jullit waaw ba léegi ci fi nga xamante ni mooy kër euh, sëriñ Issakha Mbacké ñoo ngi ak jëriñ gi nga xamante ni moo yor wàllu kuréelu xasida gi ah, dañ koy bàyyi moom mu wax ñu turam après xamal ñu liggéey bi nga xamante ni moom lay amal ci kuréel gi nga xamante ni moo nekk fii ci kër euh, Serigne Issakha Mbacké sëñ bi boo ñu mënee xamee tur bi euh, laata nga ñoo wax liggéey bi ngay amal fii ci biir xasida yi. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi ñoo ngi delloo nuyoo bu baax. waaw ah, di eh, tàmbalee sunu nuyoo ci sunu bunt sunu wasila eh, sëriñ Isaaxa Mbakke ibnu sëriñ Moussa ibnu sëriñ Basiru ah, di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi lool te eh, dëgëral ko ba yéene bi mu am ci liggéeyal Seexul Xaddim mu def ko ci lu kawe njortam waaw ah, ñu ngi ko koy ñaanal bu baax ak mboolem bokk taal bi ànd ak moom ci liggéey bi yëpp. waaw li ngeen laaj nag xam naa des na ci sawara tontu. Eh, li ko waral mooy moom mi ñu àndal de maanaam ku nekk dafa xam fi mu teg bis Sëñ Tuubaa bi loolu yi moo waral eh, ñu sawar lool ci ànd ci ak moom rawatina ci njàngum xasida eh, gannaaw ci wet goog lañu la ñu ci féetale ñu nekk ci kenn ci ci ci mbooloo mi di di di di di yor ci liggéey boobu muy wàllu xasida yi nga xam ne ñun fa la ñu féetale mooy sunu cër te moom. mu bëgg xasida lool euh, daara jii di daara nëx ju ci moom la ñu nit ñu nekk ci ànd moom rek duñ ci taay benn yoon màggal gi it moom mu bëggoon ci ay taxawaay yu yaatu donte li ñuy jéem sax suñu kàttan mënu ko waaye danañ def suñu kem kàttan ngir ànd kook moom liggéey bii nag moom ñu ngi ko dalee ànd ak moom ca kawlax yàgg na lool sàllaaw boobaak léegi ñu ngi ciy yëngu ci xaside yi muy kuréel Kaolack kuréel 1 bu nëx ju ànd ak moom ci liggéey bi euh, ba tey jii ñu si tey fii ci euh, këram gii loolee moo waral ñu dellusiwaat fii ci màggal gi ànd ko ak moom euh, moom nag bi Sëñ Tuubaa bi da ko da ñor ñoriñ woo xamante ni dem na ba ciy wax ne bi Sëñ Tuubaa bii de maanaam su ma gisoon ku ma tay sama jëmm ji def ko ci màggal gi ma jaral jaral na ma ko ma tayal sama jëmm ji def ko ci màggal gi wax na it ne maanaam bis Sëñ Tuubaa bii de ma def ci li Sëñ Tuubaa bëgg xolam sedd guy ma tàbbi sawara moo ma gënal ma ñàkk koo defal lam mu bëgg tàbbi àjjana loolu wax na ko ba tàyyi mu booy suñuy nopp te it muy dëggu ci moom moo waral suñu jéem lépp ñu koy jéemee nii ci màggal gi waaw liggéey bi nag moom moom sëriñ Isaaxa mii ñu ko àndal doxin wi xaw naa wute lool waaye moom noonu la ko suñu borom bindee ndax moom kat dane dane dànn rek teg bët sëriñ bu mag bi waaw ni sëriñ bu mag bi daal yaree noonu lay yaree euh, la sëriñ bu mag bi daa daa daa digle loolu lay digle la mu daa tere loolu lay tere moo waral boo dugg see ci kees gi da ngay gis fii ay góor yàlla doo nga fiy gis moom moo yaree noonu maam na sëñ mag bi daa yaree ca njaareem xam naa loolu sax du suñu wàll bu suñu ab Ablaye ñëwee dana si gën a indi ay leeral waaye kees gi dafa nekk ñaari kees mu nekk kees soxna yi ak keesu góor yàlla yi fii nag dafa nekk euh, keesu góor yàlla yi nga xam ne euh, wuute naag fa soxna yi di nekk loolu xam naa su suñu jëwriñ dana si gën a indi ay leeral waaye ñun daal liñ su mën a wax dëgg ci wet gu ñu féete mooy ci turu kuréelu nëx ju waa kër Serigne Issakha Mbacke ibnu Serigne Moussa Basirou waaw di ko ñaanal nag mu yàgg fi lool màggal gi moom sant nañ ci bu baax a baax wax dëgg yàlla sant nañ ci Serigne bi bu baax a baax a baax waaw maanaam njàngum xasida gi moom tàmbale nañ ko 17 safar 17 safar ba léegi ñu ngi jàng ndax Euh, ci bisu 17 safar bi bañ jullee suba ba noppi dañuy tàmbale ndax gannaaw gannaaw waxtu yu nekk dañ fiy jàng xasida rum naa kuréel ko ak yokk yi euh, jullit tisbaar jàng nañu rum naa ak yokk yi tàkkusaan ci lépp ci 17 safar gi noonu timis noonu gee noonu biñ demee ba gannaaw timis gi la euh, programme kuréel yi tàmbale. ba léegi ñu ngi ci liggéey bi nga xamante ni moom la ñu amal fii ci kër Serigne Issakha Mbacké ci 18 safar 1440 dëppoo ak atum 2018 ñuy ak euh, jëriñ gi nga xamante ni moom lañ jox lépp lu yor ci wàllu alxuraan fii ci kër Serigne Issakha Mbacké moom tamit daf ñuy xamal turam tamit euh, xamal ñu liggéey bi nga xamante ni moom lañu ko dénk fii ci kër Serigne Issakha Mbacké sëñ bi tuuti mu lay xamal tur bi ak liggéey bi nga xamante ni moom ngay amal fii ci kër Serigne Issakha Mbacké. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخديمه mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu nu ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp di balu xaq ñëpp di bal ñëpp di ndokkeel ñëpp ci bis bu màgg bu tedd bi nga xam ne moom lañ bokk di bisub mboolem ab jullit ab jullit nekk ci àddina bi di rawatina mboolem murit di jiital ci ndi ziyaar yi ak ndokkeel yi sunu sang bu tedd bi di a cheikh Mouhamadul Muntaqa xalifatu taifatul muridiya di ci toftal eh, sunu sang bi sunu yaakaar a cheikh Ishaq Mbacke ibnu cheikh Moussa Mouhamadul Bachir di leen ñaanal sunu borom yàggal leen fi te sàmm leen te aar leen ci barke Cheikhul Xadim di leen nuyu di leen jaajëfal bu baax yéen waa Tawfekh te di rafet liggéey bi di sawar a tontu ci laaj bi ngeen laaj muy lu jëm ci wàllu liggéey bi nga xamante ni moom lañu ànd ak ku baax kii sunu sang bi eh, ci bis bi ak mboolem bis yi rek nga xam ne ca lañ ñu féetale mooy alquran ja moom day wax dëgg yàlla eh, eh, ni ko sunu jëwriñ waxee sànq rek. dafa dafa yàgg def ak dann Serigne Touba daf ko daf ko yàgg dann ko jarek xam ne waxuma la bisub Serigne Touba bi waaye euh, moom daa saxaw bis bu nekk mu jàngal Serigne Touba ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett loolu moom naka jekk noonu la ko saxoo bis bu nekk mu jàngal Serigne Touba ñaar kaamil ak juróom-ñett te bokkul waxtu ndax dafay faral di wax naan nga fexe ba kenn nit jube ci yow. moo gën xewle àddina ak li ci biiram te mbooloo mu lu ñu bari bari bari bari nga bañ saa tàyyee fexe di wax di jubbanti di yar ba kenn jube ci rek moo gën a suñ borom lu baree baree bari kon moom gis-gis boobu mu amoon nga xamante ni moom la maamoom amoon Sëñ Tuubaa amoon ko foofa la nekk di tàggat gone yi di leen yar nga xam ne gone gu ci gën a tuuti ah, macha allah nga gis nim lay tàggatee nim lay yaree nga xam ne li war mag ci wàllu diina am ci yi mën a ña yi mënta ñàkk yëpp gone gi da koy teel a xam nga xam ne gone gi mën naa am ab yar sax lu jiitu muy amam njàng kooku nag tawfeex gu ko suñ boroom defal la di ko ñaanal suñ borom gën ko ko sàmmal gën ko ko lëwalal gën ko ko màggal te sàmmal ñu ko ci barkeb Serigne Touba mhm, jërëjëf jërëjëf. خير مولد غير منجد زببت لغير الله ما لم يكن asalaamaaleykum yéen a ngi seen euh, seen euh, bu télévision Tawfekh Production ñoo ngi fi si Seras ci kër sëriñ euh, Issakha Mbacké ñi nga xamante ne ñoo yoroon lépp lu ñeel wàllu lewetal gàtt yeeg yooyu ñu nekk ak jël jëriñ nga xamante ne moo yoroon liggéey boobu sëñ bi tur bi naka la. asalaamaaleykum wa rahmatulah Moustapha Ndaw Moustapha Ndaw bu ñu mënee xamee liggéey bi fii kañ ko tàmbali ak ba ngeen tàmbalee ñaata jur ñaata nag ñaata xar lañ fii ci. Euh, barki borom Touba fas yéene liggéey sëñ Touba jëriñu jëriñe jëriñ mboole mu jullit euh, di ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha Cheikhul Khadim mu yàgg fi lool te wér euh, noonu la ñu ñaanalee njabootu maam Cheikh Rahane Fall gi ki ci bopp bi di Serigne Cheikh Jëmbu faal mu yàgg fi lool te wér di ñaanal sunu sang sunu sëriñ sunu yaakaar yi tey ak ëllëg Cheikh Isaaxa Moussa Cheikh Isaaxa ibnu Serigne Moussa Serigne Moussa ibnu Cheikh Mamadou Bachir moom Khadimu Rasul di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te gudd fan te wér ba li mu naal ci liggéeyub Serigne Touba bi mu defee ko ni kawe njortam te ñu ànd ko ak moom liggéey bi nag diiru premier safar ba léegi sëriñ bi mi ngi ko ànd ak mbokki taalibe yi nga xam ni ba mu ko tàmbalee ba léegi bernde yum ci def tey bu subaa mu def ci yu ko fawxa kon nag ñii fi ñëw nii ñoo ngi ànd ak Serigne bi ci liggéey bi. bañ fi ñëwee ba léegi nag daanaka liñ fi xayma ci lewetal ko ci ay gàtt mu tàmbalee ko ci xar ganaar giléem mënuñu koo xayma ndax ñi nga xam ne ñooy ay kilifaam ku ci nekk ci njabootu sëñ tubaa gi yóbbul na la ay bernde tàmbalee ko ci Cheikh Mamadou Muntaxa njabootu sëriñ Basiiru gi gu góor gi ak gu jigéen gi daaray alxuraan yi ñi nga xam ne ñoo yor ay daaray alxuraan nekk ci dëkk bi di ay sangi mbàkke ak fépp fu waay nekk sëriñ bi yëkkati na ay bernde yóbbul leen ko fa liggéey bi nag mi ngi ko teg ci loxo sunu jëwriñ sëriñ Ousmane Ndiaye ñu ànd kook moom waaye mboolem képp koo xam ne rek yaa ngi wax ashadu an la ilaha illallah wa ashadu an muhammad rasulullah yéene na la ci te it joxu ko ak njabootam rek màggal ko ak ñoom da koo séddale umma islam bi yëpp mboolem ku fi dikk rek sa cër mi ngi ci barab bii li nga xam ni yelloo nga ko fi danañ la ko jox te doo ko laaj sëriñ bi noonu lay dundee ak murit bi xaadir bi ta tijaan bi ak laayeen bi waaye bis bii nag nga xam ne Cheikhul Khadim moo ne woon nañ ko ci santale yàlla sëriñ bi da ko fonk lool ba bu dikkee liñ naan li sëñ Moussa Ka wax miraasu sëñ bi da koy def boppam jël léppam def ci liggéey sëñ Tuubaa yi kon nag ànd gii ñu ko ànd ak moom yàlla nay junni at yu tàmbali ren te mu yàgg fi lool mbàkke wér mu yàgg fi lool sagub sëñ Tuubaa la ku sagal sëñ Tuubaa la ku bëgg sëñ Tuubaa la kuy digle li sëñ Tuubaa digle la kon ñu ngi koy ñaanal ànd gi ñu ànd ak moom yàlla na ko yàlla yëg yont bi yëg ko Seexul Xadim yëg ko te yàlla nay barke bu ànd ak njariñ te sax dàkk di jiital ci nuyoo bi nga xam ne moom la waroon a njëkkee mooy sunu jëwriñ ji nga xam ni euh, moo ñu jox ndigal ci lii ñu yëkkati sunuy kàddu muy sëriñ Ahmadou Tall di jëwriñu sëriñ bi ñu ngi koy sant bu baax di sant waa euh, daara ji yëpp kuréelkat yi duruskat yi dong yi nga xam ne ñoo nekk ak sëriñ bi ci daara ji di fi sàkku xam-xam yàlla may leen ñu xam te ràññee te mokkal te dellu ci seeni wayjur ci ndimbalu sëriñ bi bismillaahi shaytaan rajiim bismillaah barke Sëriñ Tuubaa waaw Abdou Khoudous Gueye dongal Sëriñ Isaaxa Mbàkke waaw kër Sëriñ Isaaxa ak boo koy lëkkale ak bisu Sëriñ Tuubaa bi naka lay naka lay demee waaw bismillaah barke Sëriñ Tuubaa waaw loolu de moom xam naa ne boroom xam-xam yi ñu ngi ci kër gi ñoom mën nañ cee wax waaye moom ñun liñ ci xam muy loo xam ne ñi ngi ko jëlee ci sunu kilifa gi ci doxinam muy suñu saaxa Mbàkke moom Serigne Moussa moom suñu Basiiru moom Xaadim Rasuul muy doxin wa nga xam ne loolu la mag ña fi jaaral suñ Tuubaa muy njabootu boppam gi noonu lañ waxoon ne suñ Tuubaa noonu la diglee bisam bi muy santale ko yàlla li dalee ci ganaar ba ci gileem ñu koy wax un jour d'action et de grace maanaam loolu nag la sëñ Ablaye wax dafa dafa dafa dafa doy sëkk ndax dafa ni sëñ Tuubaa dafa ni digal naa képp koo xam ne sama mbégte sa mbégte la fu la sama bis bi fekk ci kaw suuf nang ma ci santale yàlla li dalee ci ganaar ba ci gëléem loolu Cheikh Abdoul Ahad Mbacke moo ko wax Cheikh Fallou Mbacke waxaat ñu ne bis bii de bu nekkutoon moom sëriñ bu mag bi nee na la ñuy wut ci moom duñ ko am ñu déggaat ci Zawiya Sakor mu ne nee na doo kon ak dem gi wolof nasaraanu te kon billaahi ñëpp dem niiraan loolu moom foofu doy naa yem bu sëñ bi demutoon ci géej gi ñun ñu dooni nasaraan te kon ñëpp doon ay dem safara kon nit ki kalatee dem safara bu la woowee ci nga sant santale ko yàlla loola war nga caa def loo mën ak loo mënul ndax sëñ Saaliw Mbàkke moone ne sëñ moone moo fu fi ñaar dendee kii di ko fonk muy màggal gi kii di ko bañ a fonk ka koy fonk du dañ di gis la mu tiimee ka ko dul fonk ba faaw kon nag loolu lañ cay jàngee mooy bis la boo xam ne bisu saalixoona fil xayraati la muy njëkkante ci yiw barab bii ñu nekk nag loolu rek lañ fi gis sunu kilifa gi it ci loolu rek la ne ngir bañ xàmmee ak léegi ànd ak moom ci bis bii. kër gi moom kërug màggal la kër gi moom dañ fi màggal fii. waaw ndax ki borom kër gi day màggalal sëriñ bi bis bi moom li muy def doo koy defal suñ Tuubaa waaw moom noonu lay doxee te comme yarit yëg-yëg boobu nga war a nga war a am kon nag ñu ngi ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te wëral ko te nii mu def suñ Tuubaa ñu def ko noonu ñun loolu rek la ñuy ñaan suñu digganteeg moom. ñu ngi jégalu baax a baax di ziare sëñ Moussa mi nga xam ne sëñ Moussa Sow nga xam ne moo jiite liggéeyu kër gépp ci wàllum njàng ñu koy ziaraat baax baax tey ziare mbokk taal bi yëpp ci bis bi. bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa Eh, man la Moussa Sow di taalibi Sëriñ Isaaxa di taxaw wàllu njàng mi ci kër gi mu nëxju waaw ah, comme ni nga ko laajee nag moom. daara bi am bi eh, yomb si si si képpaaru sëriñ lañ nekk ko yor naka lañ defee organisation ay réunion maanaam wàllu njàng xasida yi moom fii ci kër gi dafa am njàng moo xam mu féete ci daara ji ndax daara ji mooy fii ci kër gi. am na daara joo xam ne ñu ngi fi nga xam ne dañ fiy jàng mu sax tàmbalee ci tànk yi moom am na ñaari kuréel euh, ci biir dëkk bi maanaam Touba am na kuréel mooy ay mag am na tam ñaari kuréel yu nekk Kaolack sëñ Abdou bi moo jiite kuréel yi am na kuréel gu nekk Dakar kuréel yooyu nag ñi ñuy liggéeyee mooy am na jamono yoo xam ne fii ci daara ji ñëpp daje fi ñu bokk di waxtaan ak di nos njàng mi am na it yeneen xeeti pexe yu def ci whatsapp yeeg yooyu ngir gën a jokkoo ci wàllu njàng mi ba njàng mi dëppoog ni ko sëriñ bi bëgg ndax sëriñ moom njàng mi da ñor lool ba nga xam ne daanaka mën naa ne moo koy saytu boppam ndax da koo ñor loolu itam wàcc na ba nga xamante ni fi mu nii feeñ na ren jii ci ne njàng mi dong yëpp mel na ni sëñ bi dugal na ci loxoom reen feeñ na ci bu baax a baax euh, li ci dolli ku tam muy muy muy muy muy comme ni ma ko waxee tout tout tànk yi moom ñaari kuréel la mooy féete Tuubaa mais ñi ci des moom ay kuréel yu mag la am na beneen kuréel boo xam ne kuréel national la nga xam ne kuréel yu mag yi nekk dakaar ak yi nekk tubaa ak bi nekk Kaolack dañ caa tànn nag beneen kuréel boo xam ne kuréel national la kon mu mel ne day ñaar la maanaam Touba am na ñetti kuréel Kaolack am na ñaari kuréel Dakar am na benn kuréel muy juróom-benn ak kuréel national ki muy juróom-ñaari kuréel bu defee mu nekk liggéey boo xamante ne ni euh, daanaka nosin yi moom ci ci gàttal daanaka kuréel gi dañoo yóbbaale ay yeneen liggéey sax ci ni ma ko mën a waxee maanaam fi mu ne taxawaayu kuréel gi moom àgg nañ ci di yóbbaale yeneen liggéey yoo xamante ne nii dañ koy def incha allah dinañ ci am fi ñu àgg fi ñu gën a bëgg a àgg incha allah ci barke Sëñ Tuubaa loolu daal moom mooy tënk bi waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi tudd Ousseynou Diouf. Ousseynou Diouf yaa yor lépp lu yor wàllu wàllu waañ bi euh, boo ñu mënee naka la ñuy organiser mooy kër sëñ euh, waañ wi waaw dëgg yore waañ wi organisation bi ci kër sëñ Isaaxa mooy euh, ñàkk jaxasoo góor ak jigéen sunu waañ wi ay góor rek ñoo ciy nekk li nga xam ne sunu borom dogal na ne mooy li ñu fi toggit programme bi ci sëñ bi lay jógee ñu exécuté ko exécuté ci wàllu togg yi naka togg yi demee benn ma benn togg ngeen togg wala ngeen bëri yoo xamante ni ku ci nekk boo ñëwee lu la neex rek moom moom ngay jël waaw loolu it suñu borom dogal na ko ne ku fi ñëw li nga bëgg euh, xewloo moom nga fiy fekk ndax xeet yi sëriñ Touba bëgg ñu santalee ko yàlla sunu borom yëpp yàlla dogal na ne sëñ bi taxawal na ko fi ganaar yu yuñ musuwee ngi fi xar yi ay xare ngi fi tufee ngi fi vermicelle ngi fi petit pois ngi fi maanaam xeet a ngi fi daal ci gàttal. ci wàllu ci wàllu togg bi naka ngeen koy amalee yéen nga xamante ne ay ay góor ngeen euh, waaw xam nga rek sëñ moom dafa euh, tàggat njabootam ci lépp ndax daan nañu wax ne sëñ Tuubaa daan na jël koo xam ne ak jàngalekate alxuraan la di ko defar loo daal loolee it moom moo am fii ci kër sëñ Isaaxa euh, ñii di nekk ci kuréel gi boo leen tegoon ci waañ wi ñu dem ñi ci biir seeraas boo leen tegoon ci kuréel gi ñu dem ñi ci waañ wi it boo leen tegoon seeraas ñu dem. tàggat ni sëñ waaw sëñ bi nag sëñ bi daal noonu lay defee moom. daanaka tey fii ñi nga gis ñu ne ci waañ wi. mën nañ kuréel mën nañu nekk ci seeraas mën nañu raax mën nañu karal. salaamaaleykum ñu ngi leen di ziare baax di leen di rafetlu liggéey bu baax di leen nemmeeku man la ndongole Adama Diouf taalibe Serigne Issakha Mbacké doon waaw comme ni nga ko gisee nii ci biir collation bi maanaam. lu xeetu lépp luy xeetu lu sedd ak euh, xeetu fruit ak lu jëm ci wàllu café lu tàng ak loolu yëpp mu ngi fi gis nga ko ni canette yaa ngi fi boisson yi canette yi moom mënuñoo xam sax ñaata lañ am ndax dañuy jënd di indi rek waaw moom bës bu ne day gën a yokk rek ba dem na ba carton yi mënatuñoo xam ñaata lu ci jëm ci wàllu kafe gi tamit du du doy dañuy segg di teg rek ak ataay jeeg meew meeg lépp ngi fi waaw lépp lépp mu ngi waaw waaw groupe bi day comme ñu ngi ne nii taxaw ni ñi ñëpp ci collation bi lañ bokk waaw yàlla daa dogal man lañ jiital ma doon jëwrin bi waaye ñoom ñëpp ci ay jëwrin lañ ci liggéey bi ci mag sax jiitu ma ci. comme ni nga ko gisee kii sëñ Souleymane la moom ci collation bi la bokk moom lañ féetale wàllu café gi maam ñu tàng yeeg moom mooy doon jëwriñ mu féete ci wàllu lépp lu tàng café meew ataay lépp moo koy jiite toppatoo ko waaw waaw dañ ko def ay pàcc ñii ñoo yor wàllu lu tàng li am ku leen jiite ñii nekk ci lu sedd li am ku leen jiite ñii nekk ci wàllu fir wi am ku leen jiite nga xam ne lépp lu ci jóg rek dañuy àndandoo yëpp yóbbaale yëpp kon bu café waree génn li mu war a àndal ànd ak moom ci séddale ko mu yaat waaw fir tamit bu waree jóg ñi ko war a yóbbu ànd ak moom nga xam ne lépp day yaatu daal liggéey bi gën a yomb gën a tegu ci yoon waaw waaw lépp tamit dañ ko def ci ndigalu sëñ bi waaw liñ fi def yëpp dara ump ko fi waaw ndax chaque jour tamit mu ngi nemmeeku ndax liggéey baa ngi dox ndax ñu ngi koy toppatoo ganam yi fi ñëw ñu ngi leen di toppatoo yëpp moo tax loolu yëpp dañ koy bàyyi xel waaw fexe ba gan gu fi ñëw daal maam dewen nga sawar a dellu si waaw toppatoo la toppatoo bu mucc ayib daal waaw jërëjëf